yoon yoon li xalaas di xul huwallaahu ahad juróomi yoon ñu dikkal leen ci waxtu yi nga xam ne ci la jàpp koor gi 5 heures 17 juróomi waxtu ci fajar bu taftalee fukki simili ak juróom-ñaar bu dee waxtu yi dog yi juróom-ñaari waxtu si ngoon bu taftalee fanweeri simili ñu ngi leen di jox dig daje ba suba incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban